caméra bi tàkk na. oui tàkk na. lumière tamit lépp tàkk na. lépp tàkk na. léegi kon lan moo ci dess yow rek yaa si des. y a des choses yo xamante xam nga. il se tourne dans mon tête. mais man fan la wara tambalé sax. question la réponse question réponse. merci beaucoup Darou bu ko defee ñu commence suñu question. tay sax man mi ma fi nekkul di présenter wu. pourquoi. parce que lima ma dégg moom moo dalu sama xel. boo fi dégg lo ñun dégg nañ lu ko raw. lima dégg tey dafa mag sama juddu. sa diggante yàlla. barki Serigne Thioune Diagal li ma dégg tey du sama arrangement. fermement. xam nga dégg naa fi kunkaane dafa daw ay kunkaane dafa yéeg ci benn gaal ba daw na. Hmm? ba ma naan Diop Fall vérifié na fu kunkaane jaar. bu ne vérifié na fa ñu ne jaaroo fa. ah bon. kunkaane. Eh, may ma ba wàccoo kunkaane ba pare. ñëw ci yow léegi. ma déggal ñu naan kunkaane mi ngi aéroport pour ñan visa daa bëgg a daw génn te man maa ngi sama kër gi. déggal naa fi tamit ñu naan Koun Kandé dafa bëgg bu jour ba bu ko gars joxu cinquante mille mu taxaw lànk naan du ma xar géej gi. maanaam ay faux information yoo xam ne wérut. tey nag dégg moo gën a garaaw ma bëgg nga tontu ma si. waaw li ma tontu tey. boo ko xamul ma posé walla question bi ndaxte dégg nit ñi ñu naan dafa yi te na tamit dégg rek ci am te na ma bëgg nga indi ci ay mes chers compatriotes Kandé Koun tamit amul mes chers compatriotes amul dara waay dama ma ci mu tontu ma ci moom. dëgg du romb nopp. programme bi nga xam ne tey mooy yomul assura bi. waaw. kon tey événement bi dañ koy reporté. dañ koy reporté. yaa Cheikhul ibrahim Baba Lamine Diassé. non lii du dëgg. dul dëgg yàlla naa tàkk ba jeex. Koun Kandé lii waa Diop Fall. pourquoi. ndaxte père may ngoone Fall toog na fi ne la sañoo jàkkaarloo ak man bisu tam xarit te xanoo géej gi. te nee nañu lépp looy bañ mu yegg si ko jàppal bis. jàppal na ko bis nag. Koun Kandé Omaro mi nga xamante ni maye bakkan rek rek rek lay def nee na woon nii. Koun Kandé sañu ta jàkkaarloo ak man ne ma day xar géej gi. géej gi ala kulli haalin dana ko xar. xam nga ni da ngay nga ni day fen. teg si nag Koun Kandé woo journaliste yépp annoncé leen dina xar géej gi. amul benn journaliste boo xam ne oo na ne la danaa xar géej gi. waa kii ñemewul yàlla rek. buur léegi xanaa doone ma Sénégal yi wax nga xar géej gi de. man maa jëloon sama décision ne danaa xotti géej pour dimbali maanaam askan bi Sénégal ñu dem Europe. léegi kan moo tax nga reporté ko. waaye comme jur na fi coow yi neen li coow bu mel nii gars di coow di coow. loolu ruubee la. waa coow moo fi am tamit. non coow amul na. kon coow amul de. billaay coow amul. waaye yéen kunkande bi man tëddul. Mbadou kunkande dañ koo testé mu positif. musul corona. moo ma jaaxal. kun Kande mere naa la ngay def interview di fen rek. jéemoo yëg ni mere naa la. wax nga fi mën ngaa xat géej gi wax na li yonent yàlla Moussa defoon mën nga ko te jéemoo yëg ni. am naa dara lu man a jàppal. fas naa sama kanam ba yëg ni fas naa sama kanam ba egg si gàññ sax. mais dara. ay fen nag bu ëppee dañ la koy signalé xam naa ne nit dëgg koy xam. comme yow doo nit. damay dem ak yow direct pour nga comprendre. ak ay bëtal ku gis xam ne jamonoy dinosaure. documentaire dong nga mën a xool gis dinosaure amatul race bi jeex na. kun kan daa yàgg a fen muy jàll mais bii moom. sa <laughs> passera jamais. <laughs> kun kan gis ne tey bu ma la doon wax lenn rek laa wax. wax dëgg yàlla sa scénario yu rafet la. mais mise en scène bi baaxul. pourquoi. parce que dara gën a fen ba Sénégal yëpp xam ne yow mii kat da fen ñu bàyyi si biir nga wëbbi di xool ba xam ne Sénégal naka tey. ay borom xel newuñ fi. xam nga ni da ngay fen. au contraire borom xel yi xam nañ ne da ngay fen de. dëgg du romb nopp. mais dañ la bëggoon a may deux mois ba xam yow maîtriser nga ay fen wala maîtriser woo ko. alhamdulilahi rabbil alamin si biir deux mois yi man Kounkandé man maîtriser naa ko. waaye yéen Kounkandé bi man tëddul. lii la Sénégalais yi bëggoon a xam na xam kan mooy Kounkandé. kon Sénégal war nañoo yeewu xam ne man. buur rek lay def. fi mu toll nii Sénégalais yépp xam nañ ne Kounkandé. buur rek lay def.

dem yaakaar a tas